yasim belante ahmadu naramatuna ya amiduna nimatuna mahmuduna faratuna ah, waljudu musridi yama Cheikh Bamba ahmadu naramatuna ya amiduna nimatuna mahmuduna faratuna du musribi amin njol maka ahmaduna rahmatuna ya amiduna nimatuna mahmuduna faratuna ya wal jodu musribi njol maka lil mustafa lasitura ya am lahu salatu ma am tidayi kulla am rumtu mina wax leen Serigne Touba amul morom ko am morom yàlla ko def muy sun borom bàyyi Serigne Fallilou Serigne Touba amul morom ko am morom muy sa borom yàlla ko def muy sun borom bu nuy bégal ba sëñ Fallou sa du ñeewaay keneen sa sa soppe desu la gëm di gëm lala la den sëñ Fallu yi borom leer yee sang baange sëriñ Fallu yi borom waay sidi xalqe sang baange sëriñ Fallu yi borom leer yee sang baange sëriñ Fallou Serigne Fallou borom leer ya yaa bëgg Serigne Fallou galas bàyyi mbeen def leen ni ñu màggal Fallou Serigne Fallou borom leer ya sanga baa ngi Serigne yàlla ko màggal te moo ko teddal naaw si mu siiw mu kaang ma ba woon na ni Cheikh Bamba ñaag ma Cheikh Bamba jox daaru boole kooki murit mu gën faa waaru sëriñ ma ñaaw si la ma ñaaw si ku daa jaamu yàlla ngi ku daa jokkug bokka ngi ko fonkoon sëñ Tuuba fonkooni waa këram fonkoon kitaabu laay maami sëriñ Balla si la ku sopp sëñ Balla sila defal nañu màggal sëriñ ma ñaaw sila sant rek la war yow mi mu teral yengatul Fallu sama waji ki kemam amatul sant kalawar yaumi war yow mi mu teral yengatul Fallu sama waji ki kemam amatul Tegal ma tëgg ki fi gaañi daan tag baayu mbeen ay sëriñ Fallilo yaa mata tag baayu mbeen ni tëgal man sëñ Fallu ki fi gaañi daan sëriñ Fallilo ay sëriñ Fallilo yaa mata tag baayu galas baayu ni tëgal ma tag ki fi gaañi daan lay lay la ay sëriñ Fallilo yaa mata tag baayu fallu awa busoo ni ma nes na caa taggat baayu fallu awa buso ni ma nes na caa taggat baayu yaa bëri taggat maam yaa neex a tagg baayu mbeen ni tëggal ma sëñ fallu ki gaañi daan laay lay la laa ay sëriñ falli loo yaa mata taggan baay sëñ fallu nga bëgg ni ma nes na caa tagg baayu mbeen sëñ fallu nga bëgg ni ma nes na caa tagg sëñ Fallou nga bëgg ni ma ne sa na yaa bëri tagit maam yaa ne xa tagën baayu mbeen ni tëgal sëñ Fallou ki fi gaañi daan laay la laa ay sëriñ Fallilo yaa mata tagën alaaji Fallilo baayu mbeen na ko na ko sax mi daa ñëw muy taw bërki dem bi wutaat nañ beneen baas bu rëy cérémonie màggalu Tuubaa ñu ngi koy defee buntu kër sëñ Fallou loolu def ma bo gisé sëñ Fallu ne ci xol yi dafa jaay njurelam jëndé ko talib xamné ak talib rek am solo dang koy waxtane chaque jour sëñ touba dani bo amone sëñ Fallu dana ko tëggaane sa waxtan la koy dégg waye magal gi nga gis ni moko andil indil sëñ Tuubaa daa xëy xëy ni magal gi lima bëgg na ñëpp fekk ci ma touba magal gi dañ ko daan défé fu ne defe nañ ko jaarém sax ak fu ne ku ne diko def waaye daal xëy xëy na ma ñëpp fekk si Touba ndax sëñ Touba kër loo koy defal fii ci peggam la ko dàqale kon boo woyee sëñ Fallou muy soppe ajaratu bii nga xam ni ko ko ti dégg nga ni sëñ Fallou rek la bëgg sëñ Fallou la woolu sëñ Fallou la doyloo léppam Cheikh Mouhamadul Fadal la kon may am mbégte nag di nuyu ñu ma fekk ñëpp di am mbégte nag di siyaare ñëpp ci màggalu sëñ Touba bi di ñaan yàlla nañ ko yàgg a fekkee ay ati at ci barke Rasulullah sallallahu alayhi sama nuyoo nag maa ngi koy tàmbalee ci Cheikh Abdoul Ahad mu baax mii fekk naa démbam fekk tey ku yokkul nag wàññeeku ba ndaw nga ne ci gox bii may ñëw ci kon bi di yëkkati xasaayit ngay jàng alxuraan jàngi xam-xam ñuy tàntantu waaye léegi lu nu tàntati waxuma la fii waaye ci réew mi yaa koy waxtaan xam nga lako waral seigne touba dani laysal ilmu bi kasrat riwaya bal innahu nurun mahdraya ndaw nga waye seigne touba rek ngay wone ta tek ko ci xam-xam ak yar ak teggin man ku nek lay reral lo ci rew mi waye nit ñi bàyyi nañ la xel aduna bàyyi nañ la xel lutax seigne touba mi ngay waxtane ta tek ko ci xam-xam tek ko ci yar tek ko ci teggin loolu nak fierté ñëpp la waye rawat la ñi goxoo Madiana ndax fekk nañ sa démb fekk sa tay man amna ku ne waye ko gis mu ni sëñ Abdoulaye day sama waaye la bëgg naa ko ngir sëñ Tuubaa mi waxtaane te de ko teg ci xam-xam kon tey bu ma ñëwee ci koñ bi danaa ko seede maa ngi lay siyaare baax baax di jox sa wàccuwaay yéena ji nga am ma teew si nii fekk si jataay bi ah sant naa la nag bu ma ci joge maa ngi siyaare sëñ Muudu mu baax mi Géey Njooro maa ngi lay siyaare man sa tur yàgg naa koo dégg waaye lu baax rek laa doon dégg ci yow waaye tey ku ñëw ci mbedd mi gis nag yi nii nga ko def xam ni yow nag murid saadix nga ku bëgg sëñ Tuubaa nga ku wóolu sëñ Tuubaa nga ku doyloo sëñ Tuubaa nga ku kennal sëñ Tuubaa nga waaye ku jàppale sëñ Tuubaa ci màggalu Tuubaa lii si gis ci mbedd mi traversé naa mbedd mu ne waaye maa ngi koy doog a gis nag lépp nga defal ko sëñ Tuubaa da koy gën a mën nag yàlla na ko gën a mën ci barke yàlla mi nga xam ni moom la sëñ Tuubaa ni bis bii dama ci sant yàlla barki dem lañ jóge Mbàkke Baari Jolof kër gi sëñ Tubaa jóge woon génn ci kër gi julee ci jàkkaam ji ni damay génn nag liggéey ne ko maam Thierno damay liggéey da nga koy waxtaane chaque jour waaye Mbàkke Baari Jolof maa yor ne cour central ba le 10 août la sëñ Tubaa génnoon mais xarate yow ma sabti jamini xasar li xidmatil muxtaari fi saxar safar génn naa fukki fan ak juróom-ñett ñu ne ko lu tax mu ne ngir liggéey li Seydina Muhammad bis boobee nag mu tàggoog doomam ya sëñ Fallou ak sëñ Moudou Moustapha dénk leen maam Thierno ni leen damay liggéey yi maa ngi ñëw bis boobee lay fàttaliku ni moom di ci sant yàlla sëñ Fallou ne dañ koy xool di ko xool ba gisatuñ ko sëñ Fallou bi mu santaan Mbàkke Baari Jolof 1963 ne ñu dañuy xool sëñ Tuubaa sunu baay di ko xool di ko xool mu war fas wi dem kookee nag bis boobee la ni bu ñëwatee ni ngeen ma ko màggal. waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. <laughs> mbokki julli di waa gàttal <coughs> wax ci tuuti rek dëgg la kilifa gi dëgg la waaw waaw ci liggéeyam bi dëgg la dëgg la dëgg la waaye di siyaara yi fi nekk ñëpp mm-hmm. di leen jàmm mm-hmm. waaye di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bu tedd bii ñu jëm mm-hmm. eh, ñu ñëw ak jàmm waaye yàlla na leen yàlla delluwaat seenu njaboot te lépp loo xam ne ni yéene nañ ko wala niséro nañ ko fi rek yàlla nañ ci am lu kawe seen jortu ginnaaw loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di sant lu Serigne Touba ci cant gi nga xam ni ci lay sant sunu borom tabaraka wa taala yéen ñi doon jàng xasida yéen ñëpp ñu ngi leen di siyaare sëñ Cheikh Mbacke Dia da ngay ku baax ku yàgg ak noonu yaa sëñ Basiru mi sama xarit bu yàgg ak sëñ Gayta mm-hmm. sëñ Gayta yàgg naa xamante ak soxna si yàgg na lool waaw ah, xam wax daal ngir ñu ngir ñu gàttal ko mm-hmm. mooy soxna si dafa jug xam ni Serigne Touba mm-hmm. kenn la mu xam ni Serigne Touba kenn la ci moom mu am ci yëg-yëgam ba mat sëkk nga xam ni mbiram waxtu wu ne da cee natt suñ Tuubaa Sëñ Tuubaa fekk ko ci te nag fi mu gis borom këram bii teg ab tànkam ci Sëriñ Tuubaa mu mu teg ci tànkam borom këram bii nag day ab taalibe du wor du xaddi musa sensé numéro ak numéro bii musu ko sensé ñi ko xam ñëpp te loolu yaakaar naa ni lu jafe la borom këram bii bañ ko ko joxee ba tey mu toqantal ko ci yoonu Sëñ Tuubaa di ko wan ko sëñ Tuubaa fii la tegoon tànkam nii la rawee gaay moom mi waxtu wu ne muy jël alalam di ko def ci sëñ Tuubaa di ko def ci jaami yàlla yi ngir jëmi sëñ Tuubaa moo tax soxna Faati Ñaŋ mii nag day ah, wa aatul buyuuta tamit abwaabihaa buntam ci Sëriñ Tuubaa nag mi ngi ko jëlee ci sëñ Modou Guèye mii moo tax ren jiikat muy ñaan ci yéeneem ak ci asakaam ak fi jamono toll mu waxoon ni jënd na fi maanaam ñaar fukki paquet canette. ñaar fukki paquet canette. ñaar fukki paquet canette. ñaar fukki paquet canette. ak juróom benn fukki. ak juróom benn fukki ndox yi nga xam ni. mooy ndox ndox yi nga mooy ndox mu neex mi muy siwo ndoxu siwo bu neex bi nga xam ne moom lañ taamu ci màggal gi. ah. nee na Serigne Touba rek. nee Serigne Touba rek. képp ku koy liggéeyal. képp ku koy liggéeyal. nee da nga ci boole jaamu yàlla di julli. mu boole ci ñaar fukki. sijaada yi. teg ci fanweeri satala. teg ci satala mi ngi nii. mais ah soxna Fatou cay ji teraanga loolu lan la madaar waaw waaw waaw ku dajale mbooloo dana raxasu ba set ndax lislaam ne am na saafatu set minal iman bokk na ci gëm yàlla ay mooy madaar bu bari ay keesi kees la ak saabu laabee ak ordre sabel bëgg na ñëpp set waaw beñ ak beñe bu bari mi ngi ñëw ah waaw waaye lii de kumpa la moom ah. ah lii dana ko ñëpp seetaan moom ne lii muy bëgg a def ndokkee la ci diggam ak sëriñam soxna Fatou ne ah, lii da koo liggéeyal Serigne Touba jaare ko ci buntam mi muy sëñ Moudou Gueye da nga koo matade Gueye Ndiora ne lii muy da bëgg a def nag muy diggam ak sëriñ bi moom la bëgg a yees lu waate nekkub taalibe rek barke Serigne Touba Mbacke soxna Fatou jërëjëf ndax borom këram teral na ko sagal na ko ci diggi bokkam waaye Baara jërëjëf waay kon ni la gaynde la jur kon ni la jur faaw nga faaw nga xolli say bët ne bañ xam ni gaynde la jur ah tiraanga yi tàmbali na lii day moom garaam bu la jagsineer ah téyel baay téyel ko ah ba tey jagsineer yaa ngoog sëñ Muudu yaa tol noonu jaksineer sëñ Muudu yaa tol noonu jaksineer sëñ Muudu yaa tol noonu waaye fàllu fu ma toll jaksineer waaye sëñ mbirum sëñ Tuubaa ngi nii de ah nee na lii nag lu mu demee ca tool yàlla ndax dafa tàng ah waay waay waay waay soxna faatu daal moo jaar fii di exploiter ci sëriñam rek nag soxna Fatou madame Guèye ah waaye lii lu mu baara dégg ngeen a waaw yi daa génn bitim réew ab yéeg abiyon wuti woon parfum yi ne ne lu baax lu ne ma ëpp sëriñam la ci yi parfum te yi parfum sama nijaay ubbi ñu xool parfum yi bitim réew ah nday faatu Fallou boo demee na nga wan lii sama soxna nag ak sunu waa koñ dimbali ma ngir sëñ Tuubaa rek Fallou filma ko waaw aroyukaay la nday faatu jërëjëf yoon waa ngi ak lan ah marakis marokis marocain dàll wuy ma nag wuy ma léegi xam naa nag mu daa bëgg a ñëwal boppam yeesuwaat nag ah baara jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Moudou yaa toll noonu lii lépp yaa ko jëf yàlla na nga fekke lépp waaye yéene ci liggéey sëñ Touba yàlla na nga àggale lépp barke sëñ Touba at mu jot loo man nga man lu ko rawati acca ndeysaan waaw wuy ma nee am na mbégte xolam sedd na guyu nee nag mi ngi gën a yeeslu bu baax a baax waykat bi wax na ko léegi jébbaloo wër yoon wi njébbale ko yor mag ñi ay boroomi xam-xam la ñu ay wàllu yu lañu woon waaye dañoo ñëw ci seen tubaay jébbal ku lay sëriñ bu la yàlla booleel jébbulu nag gëm ko bu ko yemaleeg dara tey jii nag soxna Ndeye wane waat na aw yoon sañ muuru xool yëpp sedd na xam naa sëñ baylaat lu mel nii bu nu ñëwee fii seet bi nga dëkk ak sëñ muuru as gor di nit ku baax ko xam sëñ Tuubaa ngay wane di wax lu baax il faut nga sànn ci ay kàddu ñu doog a déglu nag sëñ muuru mu doog a tëj waaw hmm? la gëm moom la wóolu te firndeel na ko tey waaye mu bëgg sëñ Fallu sëñ Fallou mi nga bëgg nag lu baax rek ko ñor 45 la toog ci jal bi ni kuur bëndëng moo nu tàggaleeg ràgg rafle ràmm rakkal sëñ Fallou toog ci jal ni ko lu dadd jiba muut daraar daraar ba ndar ceeb cararar naas na sa sas Fallou galas subaa njaareem première guerre mondiale 14 18 c'est ce n'était pas noir comme des charbons brave comme des lions à 24 heures bombardé France c'est maître de Gaulle une bi del sa waa toog sëñ Fallou ni ayoo ay ay jeex la ko koy mu Mouhamadoul Fadal bàyyi Cheikh Abdou Karim bàyyi Alaaji Baara sa soppe yow kon ni nga mel rek nga war a mel léegi nag sëñ bi nga sànni kàddu sëñ bi tëj amuloo junni la cinq cent mille ñi dégg français téeméeri junni ñi dégg wolof ni man ah waaye léegi xam nga lu ma ci tegal bala ngaa waxa sëñ Modou maa la jiin yaa di teranga ñun ñi am naka sant nanu noo ngi yàggaayo maa la jil yaa te ay am nag sant nanu xol bu ko sopp jógal dukkat wane sa mbéeg xol bu ko sopp jógal dukkat wane waa ana soppe sëñ Modou Gueye xol bu ko sopp jógal dukkat wane sembe xol bu ko sopp jógal dukkat wane sembe xol bu ko sopp jógal dukkat wane sembe yaa jara àndal faatu ne neex nga mbindeef yee yaa di teraanga ñun ñi am nag sant nanu nga yàgga loolu laa doon ubbi ndax damay bañ a dem àdduna te duñ ma fonk sun borom ni maa ngi giñ ci sama màgg gi boo demee àdduna ku la jokk danaa ko jokk man yàlla waaye ku la dog danaa ko dog man yàlla ne kon nag ne lii lépp ci biir mbokk la ne tayit lii lépp ak mbokk la soxna Fatou mi bu fekkee jël na tiraanga yu rëy yii liggéeyal ko ab sëriñam waaye liggéeyal ko sëriñam bi képp koo xam ni sab xol sell ngi ci nee di nga ci yëg bànneex nee rawatina fii mu ko defee nee ci màggal gi ndax ku nekk xam na ni bi sëñ Tuubaa di génn ci këram gi ci Mbàkke Baari Jolof 10 août 1895

sa bàmmeel sori na say bokk ba mu des Cheikh Ahmad Bamba ne Cheikh Ahmadou Bamba dem del si rek moom la ne samedi 11 novembre 1902 wàcc ci waaxu Moussa Séri bi daal di wax ni waat naa wàcc naa wàccaale na leen wàccaale naa képp ku ma yaakaar man Cheikh Ahmad Bamba ne daal di wax ni tukki bi bépp tukki bu masa nit nit masa tukki wàllu yàlla mu mën a doon moo programmel boppam ab tukki waaye sama tukki bi acteur laa ci yàlla moo rëdd programme bi def ma may acteur ne daal di waat yàlla ni képp koo xam ni bis bi dellu si na nga defal ma ci benn dërëm mooy sa seere ëllëg fa yàlla kon nag teraanga ju ji bu ko soxna faatu defee def ko ci màggal gi dafa laale ku boroom këram te àqi boroom kër kët ci soxna kenn mënu koo jot yonent bi nee na boroom kër bu buntu suufam bi doon génne deret ju ñor xomm soxnaam ñëw di ko dékku ci gémmiñam di ko muucu ba deret ja jeex du tax mu jot ak xam moom boroom kër moo tol noonu soxna Faatu mi xam gum xam loola ak yéene gu am ci sëriñam bii di sëñ Muudu ne moo tax mu ni lii ma def nii dama koo tàmbali rek waaye sama yéene ci sëñ Muudu ak sama cofeel sëñ Muudu ak sama yitte ci moom kawe na lii daal di kon bis bii danaa ji def sama yitte takk sama laxasaay doon bàyyi faalu sëñ Muudu ñëw ngir teral ko teral ay bokkam ay teral ay nawleem waaye def na ko waaye nee mi ngi ñaanal nag soxna Njóoba sunu yaay ne daa mel ni fan wi yaram neexut ci màggal gi waaye taxaw na ko jàppale na ko yiir na ko yërëm na ko nee mi ngi koy ñaanal yàlla defal ko gudd fan defal ko wér lim yéene ci diine ji yéene ko ci muudu yéene ko ci njaboot gi sun borom mottali ko nee mi ngi sant mbokkam yi ndax wax dëgg yàlla woote neex na waaye woote gi say bokk moo dàq lépp te nee saa yu bootee mbokki jàmbur dina ñëw waaye buñ ñëwee dinañ fekk ay bokkam nee mi ngi sant nijaayam di sant yaayam di sant magam di sant mbooleem ñu jógee di saa tool ñëpp ne soxna Fatou ne bu fekkee mas naa defal yàlla dara mu nangu ko yàlla na ko yalla yàlla bàyyeeg muudu gay amin ne lim yéene yësër ko ci muudu yal na yàlla mottali lépp nee ñu fekke mbooloo mi lépp lu ñu xalaat te bëgg ko te nasat ko yal na ko yàlla def barke màggal gi soxna Fatou kontaan nañ baax a baax jërëjëf waaye li nga yéene sëñ Tuba chaque jour say maqama day gën a yokk say xiwal daf gën a yokk man da wallahi asim xaj na dégg naa kii sa kàddu ndax am na tudd moo amoon moom sax moo amoon yéene ma ñëw ci yàlla dugalu ko moom wax ma ko waaye lu baax rek laay dégg ci yow fee nga nekk ca tëngi jit jaxasoo naa ñëpp ñoom Mansour ak xale yëpp samay gaay lañ samay rakk lañ waaye ñun tuubaal lan ne di géwéli Serigne Touba dëkk Madiyana gii di yëngu ci Serigne bi waaye lu baax looy def ak yéene ji nga am ci réew mi xam nañ ko waaye loo nekk nag bis naka tey na nañ ko ak yow nag ngir sëñ Abdoulaye mii ndax Abdoulaye ku la fonk la ak baar waa ko bi yëpp noonu nag bokk si loolu na ñoo nga ñu déglu sëñ Modou <laughs> sëñ Muudu ne ñi ngi nuyu ñëpp ne di sant yàlla bu baax a baax ne di sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne di sant Serigne Touba mi nga xam ni moo waral bis bi di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ni moo fi andi ne dajale na ñun ñëpp ñu ñëw fi ne yàlla na nu yàlla defal jàmm ne dooli nu sutura dooli nu teraanga dooli nu xéewal dooli nu wér ne di ñaanal sama yaay ji toog ne yàlla defal ko jàmm ne may ko wér may ko sutura ba ñu liggéey lépp mu fekke lépp barke Seyduna Muhammad ne soxna faatu daal noo koy sant bu baax a baax moom soxna si ne lii nga xam ne soxna faatu def na ko ne def na lu ko raw nee ta loo xam ne man mii maa ko xam ndokk ak moom ne kenn xamu ko cey ne li mu defoon bi mu ambu sama taaw yàlla def ma nekk ci ay xat-xat ne jamono jàpp ma mu dem hopital buñ ko bindilee ordonnance ne mu nëbbu ko ne du wan yaayam duko won ni jaayam ne suma ko woyé muni ma dara duma dal waye bëgguma kenn xamal ma cey moy gor maniko lolu baxut bu ko defati ne mu ko def bamu nek juroom ñaari ordonnance ne ma ak mom dar mu wan mako maniko boy am dom di nga am problème muni duma ci am ben problème ne yalla dogal na ba am dom yàgg na ci hôpital ba ba nar ca am jafe-jafe ma woo benn kilifa gu nekk Touba ma ne ma wax ko ko mu ne ma jàppal def ñaar rakk di wird yaa salaam ne balaa ma 200 ne dana am doom ne comme nii nga ko waxee rek nan la ko defee ne bi ma wird yaa salaam yaa salaam nag mooy jàmm ne avant may àgg 100 ne saas faam bi woo na ma. ni ma soxna si mucc ma loo ko ñaanal mu dal ko ne mu am doom bu jigéen nee loolu ay mbokkam yi kenn mës koo xam ne tey laa koy doog a wax tey jëf ju rafet ne loolu ne moo ëpp lii ne moo tax moom booy ba mu góorgóorlu ne mënta def lu ma naqari ci kaw suuf ndok ne lu ma def neex na ma waaye xam ngeen ni lii ne mi ngi koy sant di ko gërëm wuy ma lii rek doy na mi message lii mu wax nii ay bokkam ñu ngi ko doog a dégg waaye yow as gor nga as gor nga yow as gor nga daa am ñaar yoo xamante ni baa dool rek la mën a dal teraanga baa doole ko xamul akub dof waaye ñaar yooyu yëpp dalu la yaay as gor waaye soxna sa ca kaw ca kanam sa jotaay bi jar na lu nekk billahi jar na lu waaye bu demee ne Ablaye dañu génn fi ca baas ba lay siyaare barke sëñ Tuubaa da nga yokk ba yëg ko xool yëpp sedd na yàlla na sëñ Tuubaa def xéewal sëñ Ablaye